Euh, nga ne euh, vous allez démissionner de votre parti une fois élu président. tout à fait. donc je vois que vous avez une, une excellente connaissance de notre <laughs> de mon programme. <laughs> merci beaucoup comme ni ko assise nationale yi préconisé woon. exactement exactement et, et d'ailleurs débat s'est posé à l'époque Macky a été très ferme. exactement euh, ne moom du ko def. Mm-hmm. yow boo ñëwoon. Ah da koy appliquer. bu ñu falee tey lendemain je démissionne xam nga njëriñu land. soxna may moom mooy d' abord dina moo parti nekk parti démocratique parce que dans cinq def congrès parce que dans cinq ans bu bëggee amat candidat si c' est moi si quelqu'un d'autre il de faire un congrès li ñu am parce que les beaucoup de partis politiques le manque de démocratie bëgguma cité kenn balaa balaa ñu mën a <laughs> da nga tooñ beaucoup de partis ne tiennent pas de congrès da ngay toog quinze ans vingt ans doo tenir congrès et or une population jeune qui se renouvelle régulièrement donc oui, euh, justement, cette proposition qui a été une proposition des, des assises, l'incompatibilité de la fonction de chef de l'État et de chef de parti. Moi, je l'applique et j'y crois fondamentalement. Ensuite, gis nga chef de l'État soxna Maïmouna c'est une mission très prenante te boo ko bëggee boole ak une gestion politique de tous les jours il faut nga bàyyi benn pourquoi je crois que loolu dafa également baax pour nos démocraties baax pour nos et ça permettra aussi que sénégalais yi xam ni kii ñu fal énergie bi yëpp daf ko jagleel askan bi donc c'est une proposition à laquelle je crois fortement